ndimbal lu takkoo takku Pape Modou Fall directeur de waa indi ko jébbal ko gouverneur bu Diourbel loole nekk njàppalinu ministre Dame Diop ci xeex bi nga xam ne nguurug Sénégal su mun na ko ngir jële fi coronavirus Pape Modou Fall di wax ne ministre Dame Diop lim ci jublu weesuwul fexe ba ñi nga xam ne ñoo jànkoonteel yooyu jafe-jafe ñu dimbali leen ci fànn yu bëree bëri. dañ ñëwoon tey indi euh, contribution mooy maanaam participation bi nga xamante ne nii le ministre. Euh, Dame Diop di doomi Diourbel di ministre de l'emploi euh, de la formation professionnelle et de l'artisanat ñëw jox ko tey comité bi nga xamante ne nii gouverneur région bi moo ko jiite pour jàppale leen ci xeex bi nga xamante ni moom la ñuy xeex virus boobu ñuy wax Covid 19. donc te comme jàpp nañ ni actuellement Covid 19 ben ben yoon rek lañ am pour man cee euh, pour man cee fàggaru mooy fexe ba nekk ci set.

Euh, ñaari téeméer ak euh, juróom euh, ak juróom-ñaar fukk ak juróom gel hydroalcoolique yi nga xamante ne ni moom la raxase loxo yi indi fi ñaari junni ak juróomi téeméeri paire de gants yi nga xamante ne ni ñi nekk ci centre de santé yi dinañ ko mën a sol indi fi aussi ñaari junni ak juróomi téeméeri masque yoo xamante ne ni mën nañ ci protéger wu ak ay bassines yu am solo ak aussi kii kii yu am solo mooy

soxla peut-être yenn dépenses yi mu ne donc da koy contribuer ci dépenses quotidiennes yi nga xam mom lañu dundé donc lolo tax mu yok ci somme 1 million de francs CFA boobu pour jàppale leen ci euh, dépenses yi nga xamanteni ni mom la mom moom def. Pape Modou Fall ci doliné ne bu nu bëggee tàqalikook feebar bu bon bi di coronavirus faaw rek askat yu soppi aw doxalin. ci walu protection aussi kenn ku ne xam na ni feebar la bo xamanteni ni li ci mëna dimbali nit ki moy mu set di raxas loxom fum tollu di respecter aussi consigne yi nga xamanteni mom lañuy la ñuy joxe te loolu bokk na ci consigne yi moy nit ki di bañ ay ay gennam et ay déplacement parce que bu vous ni dañu wax nit qui ne wàññi qui nit ki ni mesure respecté virus bi qui day obligé donc balaa ko ci fekk nañ ne li gën ci donc mu des déplacement gouverneur Gorgui Mbaye fësal ab mbégteem que di wax ne li nga Dame Diop il na ko le ci Pape Modou Fall dana yegg ci ñi nga tey monsieur Fall directeur de l'emploi ñëw indi ko fi tek ko suñu loxo li waxna na lim bi léegi muy matériel bu ama am ama am solo bi nga xam ne di ngeen ko gis léegi buñu ñu li ay échantillon yu leen wan nii rek la wayé li mën leen ko léegi lool nak am solo ci ñun parce que fagaru mo gën faju te li dañ koy jëme ci population bi ànd ak docteur ak comité yi nekk Touba parce que Touba fofu la fièvre bi ne naam dinañ dimbali ñeneen diñ dimbali sax waa bel diñ dimbali wa bambay

ay ngàndaay ginaaw xex la jox nañu ngàndaay ñu ngi xexé feebar bi mhm. loolu nak ñu ngi ko ciy gërëm di ko sant waaye moom yemul foofu ekki ben enveloppe jox ko comité bi pour ñu mëna jappalé gi nga xam dañ leen confiné ci loolu nak euh, la koy gëna a parce que tam ku la lo tam euh, war na laa ñun ba mu tambalé ba léegi booba sax gisunu kenn ñu ngi doon tuñ-tuñ yi di di ko dajale bay jappalé famille waye nak nit ñaa ñew sante yalla gouvernement bi ñëw na gis nañ loxoom tay tam job ñëw na gis nañ loxo lepp lu ñuy am ñu ngi koy jappalé population yi di ko jàppale ñi nga xamné ne ñoo ngi feebar di ko jàppale aussi hôpital parce que amna matériel yo xamné hôpital daf koy soxla diko pour pour man ci pour mën a liggéey gants yeeg yépp ci ñom lay dem amna matériel yo xamné yi fi hôpital di ko jël directement diko utiliser donc ñun non lañu ñuy au fur et à mesure jox exprimer ay besoins comité bi diko diko jox li ñu yore moo xam ci alal xaalis la mo xam ci bagage ñu jot lépp ñoom ñu mu fay dem donc bu loolu amul woon xëñ na dina metti kon boog maa ngi gërëm ñëpp ñi nga xam ne dimbali nañu comité bi di di gërëm aussi Dame Diop bi nga xam ne tey moo mujjee joxe tey lii lu am solo lu lii yaakaar naa ne du du mujjante lu joxe ñeneen buñ ko gisee itam te loolaay ñaan ñëw def ni moom soxla nañ dimbalu ñëpp te lii itam dafa nekk loo xam ne loxo ñëpp a ngi ci ci war a dugg yoonu ñëpp a ngi ci parce que kenn xamul kañ lay laal lay laal